asalaamaaleykum euh, Sow la ngeen di am la petite Saloum Saloum may wax ak yeen sa su ne tay nak ma ñëwoon fi di fi amal sama émission bi nga xamanteni moy lima bëgg doon lima bëgg doon kee toog la la bëgg doon yow mi may sétan lan nga bëgg a doon tey nag ma nekk biir Kër Massar di fi dalal sama ndaanaan li nga xamanteni moy Papa Wally mu banlé ji moy doomu yëmbal ji kokoy Papa Wally damay daagu ndànk fekk ko ci biir ñu fëlaale waaw mbokk yi may seetaan euh, yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo di ndamoo di tiitaroo Elvision Média ngeen faral di ci àndal saa su ne Sow Poulo Dieng. Baba Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waa Sow Poulo maa ngi lay fay bu baax a baax. di rafetlu bu baax a baax sama ànd ak yow ci sama émission li nga bëgg a doon man moom xam naa lan nga bëgg doon damay bëgg nag ñi nga xamante ni ñoo may seetaan tey ma dalal la ci sama émission li ma bëgg doon nga wax ma yow lan nga bëgg a ak nga waxaale ko ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan. waa Sow Poulo maa ngi bég ci invitation bi maa ngi bég ci émission bi maa ngi kontaan aussi waa di wax àdduna yëpp maa ngi leen di nuyu ma kenn maa ngi nuyu ñëpp képp kuy seetaan émission bi maa ngi lay bëggee di nuyu ñëpp waa muy mel ni émission bi dafa nekk loo xam ne lu nice la ma yàgg koo suivre lool mun naa ne daan naa ko yi passé yëpp damay suivre muy loo xam ne lu am solo la kon tey buñ ma tànnee jël ma dama koy nice la aussi maa ngi ciy kontaan bu baax waa man nag li ma bëgg a doon maanaam maa ngi ci aar bi di yëngu ci musique nekk woykat waa tuddee sama bopp Papa nekk ci aar bi di woy te incha allah fekk ci kanam dinaa ci gën a yaatal bu soobee yàlla. dégg ngeen ko sama invité li mu wax nii la nuyoowee muy Papa Wally gonek gi gonek yëmbal gi waaw kay tey nag ma dalal ko sama émission waaye duma ko may dara dinaa ko laaja laaja laaj ba yéen ñëpp ngeen xam moom li mu bëgg a doon lan la Papa Wally ginnaaw bi ma la dalalee ci sama émission li ma bëgg a doon nga wax ma ni yow wéykat nga bëgg a doon wala sax moom nga doon ba pare damaa bëggoon a xam nag yow wéykat bi nga opté wéy bi nga opté nga tuddee sa bopp Papa pour lan pour lan tuddee sa bopp Papa Wally ndeysaan loo gis rek dafa am lu ko waral mhm. muy mel ni avant tout way bi lañ bëgg muy mel ni ñu ngi ciy def lu ne ñu ngi ciy góorgóorlu ndax euh, fii kat ku ñeme dañ laa dee. te nit li nga gëm saa su ne boo ko gëmee rek suñ borom mën na la cee jàppale. waaw waale bi nag du dara papa waale bi boo gisee waale bi muy waale dama koo bëgg muy ba ma koy bëgg sax wayu ma comprendre ga mun naa ni maa ngi daan way ci yeneen gars yi xam nañ bu baax mais waale dafa nekk sama idole mais su ma nee nag papa waale. c'est que ni damaa bëgg waale moo tax ma ni papa waale. moo tax tuddee soobu ndaataale. <laughs> non Kumba daa mën a tooñ. non non ndaataale mooy sama tur ndaataale mooy sama tur mais ñu bëri tey ci àdduna papa lañ xam waaw mais ndaataale Fall mooy sama tur dëgg-dëgg man lébu bu mag laa bokk ci askan bu mag mais papa bi loolu mooy tur artiste bi mais waale nag maa ko bëggal sama bopp moo tax ma def papa mais ñi yàgg a ñëw sama soirée di participer mais man xam nañ ne man duma woy woy way waale wala rarement laay dugal ay way waale waaw ci loolu laa bëggoon na ñëw parce que tey nit ki boo ne bëgg nga ko nga jël euh, saw tur dippee ko ko kon am na loo xamante ni moom nga bëgg ci moom wala loo xamante ni moom nga suivre ci moom mais avant loolu papa dañuy aniyeeraat tuuti ci métier bi nga wax ne moom nga bëgg doon muy woykat euh, bu fekkente ne woykat nga opté yow xam nga woy dafa doy waar jamono ji surtout instant yi ñu nekk ku jug ne papa waali ku jug ne waali de ku jug ne man kii laa bëgg ku jug kii laa bëgg doon léegi nag ma xam ne yow mii euh, bëgg nga woy sart bëgg nga woy mais da nga ko donn wala dafa nekk loo xam ne dafa jéeg saay ñëw ci yow wala dafa am loo doon def ba mu inspiré la pour ngay woy lan moo la dugal ci woy yow. waaw man maanaam damaa yàgg bu gaar damaa yàgg bu gaar mun naa ne man def naa fecc fecc naa ba ma ci jógee maanaam woy naa cant maanaam dama daan woy cant loolu ñu bëri xam nañ ko dama daan woy cant di ci yëngu. mais dama toog ba benn benn moment dem naa fi Maroc après ba ma ñibbisee ci laa commencé di way mbalax mais nag mbalax bi nekkul da loo xam dama ko donn parce que suñu suñu waa kër kenn wayul aw ma maam buy way aussi mais sama bëgg-bëgg la li ma la wax sànq rek mooy nit ki amul lu dul bëgg bëggëm te li nga bëgg gëm ko saa su ne suñu borom mën na la cee jàppale. papa amoo maamu lebu buy way. waaw am naa maamu lebu buy way. nga ne amoo buy sama maam la. <laughs> kon xam nga maa ngi lay topp. maxu lebu maxu lebu sama maam la. Mm-hmm. waa loolu la maxule bu sama maam la mais mais loolu sax taxul man may way maanaam li tax may way mooy bëgg géew gi ma ko bëgg moo tax may way. jërëjëf euh, Papa Waly ñu ngi leen di rappeler ba tey yéen a ngi seen émission li ma bëgg a doon tey nag ñu dalal xale bi nga xamante ni nee na daa xew nii. Mm-hmm. waaw kay papa euh, nga opté wëy woy mu nekk lu doy waar ci jamono jii te yi ngeen di defante yooyu genre yow nag lan nga ci xalaat. non man man moom mën naa ni ni ma mel ñëpp xam nañ ko tagguma sama bopp mais man nenn laa mel muy nitu nit ñi laa maanaam ñëpp laa boole yemale muy waykat bi ak ku dul waykat bi ñëpp laa yéene jàmm xam nga Sénégal dafa yaatu te Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te ku ci nekk am nga ci sa wàll. saa su ne rek li nga nekk da ngay fexe dëggal ci et puis yéene ci ñëpp jàmm ndax àdduna bi moo toll foofu saa su ne nit ñi lay bëgg ñooy gis ci yow li tax ñu bëgg la parce que nit ki moom kenn mënu koo jaay leen dama saf ko parce que moom moom boppam mu mel ni noonu dala demee góor góorlu ak gëm loolu kese ci nekk quoi. waaw kay ñu daal di ñëwaat rek ci programme yi ndax ku ne artiste ne programme mhm. euh, rawatina nga nekk ci banlieue bi. ñu bëggoon xam rek ndax yow yaa ngi amal ay programme yoo xamante ni day nekk ci banlieue bi sa koñ soit soirée tànn beer yaa xam concept bi mooy li ma lay bëgg a laaj daal grosso modo mooy. Mhm. ndax yaa ngi amal ay programme waaw ak programme ban ngay wàcc. waaw wax nga dëgg wax nga dëgg ay programme maa ngi koy amal xam nga dañoo nekk jeune talent nekk di jàng way mënaguñu dañuy jàng ba tax na xeebuñu dara dañuy dem ci xew yi damay way ay xew. damay way ay xew damay participer xew ndax ñun ñoo ko bëgg te mbir su soo ko bëggee dafay jaral lu ne xeebuñu kenn xale bu ndaw sax su ma yëkkatee damay jóg parce que yëg-yëg gi mu am ci yow ba woo la moo tax euh, saa su ne damay fexe ku ma woo ma bàyyi lu ma jàppoon lu ne dem fexe ba bëggal ko mm-hmm. muy mel ne looloo ci ne muy mel ne ay soirée tamit maa ngi koy def damay organiser ay soirée di ci sant yàlla gars yi dañuy ñëw samay soirée muy mel ni yow yàgg ngaa ñëw samay soirée xam nga ni muy demee waaw noonu daal dala demee ñu ngi koy def mu ngi neex. da ngay door de man xaw ma la xamuma <laughs> waaw comme ni mu ko waxee léegi musuma dem ay soirée papa yow tam li ngay def ah. <laughs> léegi nag dama bëggoon a xam papa Wally yow kan moo la dooleel ak kan mm. moo nekk sa ginnaaw lan moo tax rek nga am fitu jug taxaw naan da ngay yor micro di wéy ak ñan ñoo la dooleel. waa avant tout sama jëm bopp la avant tout sama jëm bopp la ndax nit ki li ma la wax rek sa ngëm-ngëm kooku nit. du la ko sàkkul yaa koy sàkkul sa bopp. Mhm. mu mel dama ko gëm bëgg ko xam ni Papa am na ci cër maanaam li ma bëgg a doon mooy émission bi. wi. waaw nar wi am nga ci cër. Uh-huh. mooy maanaam man li ma bëgg a doon mooy nekk woykat boo xam ne àdduna daf may dégg te mën naa ni gëm moo koy maye ak fit ak gëstu ak jàng looloo koy maye te maa ngi ci yooyu yëpp te incha allah am nañ ci yaakaar ni dinañ ci yegg fu kawe suñu njort bu soobee yàlla. non la demee. waa incha allah comme ni nga ko waxee affaire bi moom tarbiya la. yoonu ndaw du gaaw itam. comme ni nga ko waxee rek euh, bëgg la gëm ak ak ak ak xaw ma noo ko waxee nii léegi léegi. ba mm-hmm. pare léegi nag papa dama bëggoon a xam ba xam yow am nga looy wàcc décembre bi. waa dëgg neexul am na lu may wàcc pire le 24 décembre maa ngi jëm ci bis bu mag spécial diine boo xam ne dama ci ànd ak waa 3G. pourquoi le 24. waa le 24 décembre muy mel ni date boobu sax man jàpp ma ko. parce que gaa yee ko bëgg gaa yee ko bëgg gaa ko jàpp ñu namm bëggalante euh, jàkkaarloo defante yu baax gaa yi jàpp dat boobu nag. mais papa yow euh, maa ngi jégg lu baax ci li ma lay dagg nii. Mhm. mais yow boo déggee nga naan spécial diine gaa yi da xew yow kenn xamul la. <laughs> waaw dañuy sant yàlla. <laughs> ah <laughs> dañuy sant yàlla ne bu ma taxawoon fii ci bitti mhm. laajte kenn xamu la. waaw li nga war a njëkk def kay mooy fexe nit ñi xam la. mooy maanaam mooy maanaam mooy maanaam loo gis rek ndànk-ndànk la. Mhm. man nekkuma fi pour tëb rek ñëpp xam ma loolu mënut a nekk mais loo gis da ngay def ndànk ndànk ndànk ndànk ba ñëpp xam la maanaam liggéey la rek te ñun ñu ngi ci liggéey boobu ñu ngi ci ñu ngi góorlu mooy li ma la wax sànq rek ñu ngi jàng ñu ngi ci affaire yi te am nañ ci yaakaar tamit bëgg nañ ci yegg fu kawe suñu njortu maanaam kon xam naa ni xamaguñ ma xam naa ni toju ma fenn xam naa ni siwaguma mais gëm naa sama bopp tamit xam naa may kan te xam naa ne am naa ci cër boo bu nga xam ne dama koy jël ci maa moom. Hmm, dëgg la am nga ménageur. waaw am naa ménageur. aywa papa teel ngaa yëg escalier. <laughs> déedéet ménageur ménageur maanaam yow sax war nga am ménageur. pardon yow sax war ngaa am ménageur mais damay wut mm-hmm. mooy maanaam nit ku lay xelal di la jàppale di la dooleel maanaam nit ku ne war nga am ménageur ci àdduna muy sa papa muy sa yaay loolu la rek. waaw man nag foofu noonu laa taxawee waaw di góor góorlu di ndaw di wax ne nag la 24 xale yëpp a ngi koy waaj àdduna a ngi koy waaj le 24 décembre. Eh, bul publicité sama antenne bi <laughs> nee dafa aay nee na jeune talent la damaa bëgg nag léegi nga jàkkaarloog man woyal ma tuuti ci lu baax parce que mm. artistes yi dañuy faral di mbëggeel rek la ñuy woy. Mm. man moom bëgguma nga wéyal ma ci mbëggeel su fekkee aay nga dëgg aay gi ngay wot dëgg la ci yow damaa bëgg nga ne der askanu Sénégal déglu la ndax man sama télé bi ñëpp a koy seetaan site internet bi kenn umpaliwu ko muy Elvision Média damaa bëgg nga waxal loo daan séeréer lu baaxam mais pas mbëggeel <laughs> parce que yéen ñëpp waa xam nga man nag damaa bëgg Cheikh Ibra Fall damaa bëgg Cheikh Ibra Fall bëgg Serigne Saliou Mbacké ñoom ñooy sama lépp mun naa ni ba may woy way Serigne Saliou boobu noonu du tey ba tax na fu ma toog woy ma Serigne Saliou sax duma nekk muy mel ne loolu rek laa am lu may wax maanaam su ma sañoon daw damay woy Serigne Saliou ndax mooy sama lépp waaw Serigne Saliou Mbacké borom xel koom jaaga borom jàppandal xabaan borom daaray lagaan borom daaray gotang buur ma bëgg maam saaliw borom jowaan gàccaroon xëy ga bàyyi sëriñ Mustapha bàyyi sëñ Cheikh saaliw sangub Cheikh Béthio Thioune ma bëgg maam saaliw waaw Sanggup cheikh be cuuna Waduh guru du neex ya, macha allah sama xaali xiina waaw kay xale bi yunguna ah fi mu ne nii lay bëgg gam mang lay bëgg gam deeng la mu bak ci sangub muy Serigne allah ñu rafetlu ko bax baax fa baax dañ lay laaj ba xam yo am nga fans club guru whatsapp wala am nga ay ndaw yu la top wa nak amna fans club ñu ngi may jàppale xam nga nit ñi lima la wax sank li tax ñu la koy wan am naa fans club bu nekk dakaar am naa bu nekk Touba am naa bu nekk tamit Mbour Thiès benn bi la waaw ñu ngi may jàppale Papa tamit li ko gën a dooleel muy 3G 3G aw ma seen fay muy ñoo nekk sama ginnaaw di ma dooleel lu ma dugg lu ne ñu ngi ci di ma jàppale suba ak ngoon muy may way xew may way leneen dañ ciy dem ba jeex def ci lu ñu mën def ci seen xaalis def ci seen lépp di ma jàppale taxaw ma fenn kenn du wax Papa dara parce que 3G aw ma seen fay waaw. waaye li ñu faral di seetlu nag saa su ne mooy surtout yéen ñi nga xamante ni yéenay jeune talent yu xaw a ndaw ndaw yi da ngeen di xaw a feeñ ci marché mbala écran bu ndaw rek génn seen kër dem luye ji ndax yow loolu dal na la. waaw xam nga lool loolu noonu. boo gisee ñu wax ko nag c'est pas pour dañuy hmm. humilier wala genre mais hmm. dañ la koy wax ngir. Hmm. dafa bëri ci artistes yi nga xamante ni dañuy commencé tuuti rek. déloger génn buñ dëkkee foofu itam bu ñu fa commencé tuuti nit ñi xam leen wala commencé di sonné seen kër rek ñu changé lan moo tax ngeen di def loolu. non non loolu noonu loolu noonu nekkul artiste nit ki mën ngaa loolu sa biir privé la yow maanaam nit ki. loolu noonu man yaakaaru romani sax artiste ak nangam artiste ak euh, kumbaak demba bu naa ma ñëpp a yam mhm. fi àdduna ñun ñëpp a yam nit ñi ñoo la jàppale da ba tax ñu naan la papa papa nit ñee la jàppale ñoo def loolu ci yow kon nit ñi mënoo leen jaay rey mënoo leen invité mënoo leen jaay tamit lu leen saf parce que ñoom ñoo tax nga mel ni nga mel man moom wax dëgg yàlla yegguma foofu meluma noonu papa papa wu la pare naa pour ñëpp. papa jàng nga. man waaw maa ngi nii maa ngi tax jàng <laughs> ban classe ngay bàyyee. <laughs> fi gars yi rek. <laughs> non papa ban classe nga bàyyee. waaw fi gars yi rek. non mbokk yi yaakaar naa ne yéen a ngi kontaan bu baax a baax di leen indil tey ndaxte man sama sënt laa bi il paraît bi jàng <laughs> il paraît que jàngu la papa nangu woo ci jàng bi léegi yow lan mooy sa relation ak artistes yi am nga artistes yoo xamante ni tey boo fëggee seen buntu ñu ubbil la wala am nga artiste boo xam ne tey lépp lu la jaaxal wala yaa ngi gëstu ci moom yaa ngi am ay relation proche ci moom. waaw man nag samay dool mën naa ne mooy Wally Seck ki may gën di déglu mooy Aline parce que moom ay musique am daf maa neex. ak a xeewi. waaw wala xeewiwul. non non Alioune Mbaye Nder xeewul ci man. mu ngi ñëw ndaxte man chaque jour moom laay déglu. d'accord waaw parce que la muy way ak timbre ba muy wayee na muy wayee loolu man dafa may marqué quoi ba tax na moom laay déglu lu bëri. Yves Thiam sama mag sama xarit tamit day way man moom tamit dama koy déglu bu baax parce que seen way vraiment dafa may dugg ndax la ñuy way dañ koy teg ci gaam te xam naa ne ku dégg ci ñoom jàng ci ñoom incha allah suñ borom mën na laa jàppale. ah waaw kon deug neexul mais da nga xawa ki tout sama question bi mhm. artiste bi nga xamanteni tay mhm. lo am pour pour pour loo xam ne dala jaaxal ci art bi wala fi nga mhm. li nga ci bëgg xam daal di nga dem kërëm wala di nga wo téléphone artiste bi nga xamanteni yeen ñaar am seq ngeen ay communication waaw muy melni wax na la sank man ñepp placé sekkal jàmm muy melni duma cité ki wala ki ñepp placé sekkal jàmm ñepp la yene jàmm ñepp ñepp la nekkal <laughs> comprendre nga muy mel ni man sama gars yi ñi nekk sama ginnaaw rek dañ maa doy su nekkee le le cadre boobu ñoom lay laaj ñu wax ma defal naa nga léegi nag dañuy jógee foofu daal di ñëw ci sa port vestimentaire ni ngay soloo nii mm. lan moo tax nga di ko soloo parce que yow da ngay jàpp sa tubé yu wàññi ko <laughs> bam bam kiy jàpp ay ubbi ay génne ay chaîne yéen daal doy ngeen waar yéen yéen yi daal non non pourtant sama tubé yi dafa normal nii mm-hmm. muy mel ni loolu nekkul kii maanaam léegi sax pour nga dem gaayam man lii wàññiwoo ma ko def ma ko dara nii lañ ma ko jaayee. Ah, léegi moo xew. mais léew da ngay xeesal. <laughs> damaa leer rek dama am xaalis. papa yoo ñun xamante nañ daal da ngay xeesal daal yow papa. waaw damaa xees. eh xaalis rek. man xam naa say maam yëpp <laughs> kenn xeesu ci <laughs> yow mi xeesoo di waaw kon mbokk yi ñu ngi kontaan bu baax a baax tey ñu dalaloon ndaanaan muy Papa eh. Wally kenn dootu leen ko présenté muy gonek yëmbal gi di mm. gone 3G e gi macha allah waa 3 e dooleel ko nekk ci ginnaawam nee na nag jeune la day jéem instant yi mu ngi toll ci wàllum jàng te nee na it li mu bëgg a doon mooy artiste bu mag a mag a mag ñuy kontaan bu baax a baax ndax àddina fii ku ñeme dañ laa dee comme ni mu ko waxee mm. waaye itam nek ci ascenseur bi di wacc war Warna xoolaat sa bop mhm. war na nga yegg vélo yegg moto yegg auto di def nank nank bam yag nga tabax say tegle say birik. yag nga rax def escalier bam yag yàgg nga yéeg ascenseur loolay way mhm. kat bi mhm. parce que affaire bi fi bo jangul moy lol ya ma gëna xam euh, ñi contane bu baax baax tay dalalon la ci suñu émission di contane di la laaj nak nga gisé wa Elvision ak émission bi lima bëgg doon vraiment contane bek ci émission bi ci dalal bi aussi parce que yene yàgg naa ko suivre wax naa la li ma bëgg a doon dafa nekk émission bu am solo yàgg naa ko suivre dama ko daan suivre di ko partager àdduna di ko seetaan te ku ko seetaan damay remercier ne ma carrément am na solo mu mel ne loolu rek liggéey rek Sénégal loo mënta nekk gëm rek waaw Elvision moom maa ngi kontaan aw ma seen fay et puis li ñu def rëy na ñëw def dérangement seet si Papa xam nga def émission bu mel nii di leen wax ci kaw ci kanam rek ca lu baax di leen invité nag ci sama bis bi la 24 décembre. incha allah yéen a ngi ci biir incha allah ngeen ñëw. bégalante ñu bégalante defante yu baax kontaan trop ci El Vision. xanaa man di ma bàkk dara boog. waaye yow Sow Poulo Diéry boroom nag ak meew yi yaay Marème Dacosta euh, doomu yaay Fatima bu ma taalif wuy ma <laughs> ayoo bu ma taalif wuy ma <laughs> du may taalifee nii. Kumba Sow Sow Poulo Diéry. Yaay Marème da Costa e eh, doomu yaay Ibadu doomu yaay Amisi Torodo doomu yaay Ndewa Kumba Sow kay may ma meewo mbaa nga may ma soow doomu yaay Daaya doomu yaay Aysatu Kumba Sow Sow pour la lawbe ndakaaru lawbe saalum borom kafin woo naa la. est-ce que xam nga ne woy bi neexul. et puis yow maa la tuddee saw pula. est-ce que fay. est-ce que xam nga yéen ñi may seetaan xam nga lan moo tax woy bi neexul. woyul sama jëkkër a Djigo man monsieur Djigo laay tiitaroo moom laay ndam moom laay tiitaroo. yow ndax moo ma def ni ma mel. kon nag woy bi neexul man rafetlu wu ma ko parce que woyu ma woyul sama jëkkër woyul sama njëkke kontaanu ma ci <laughs> <laughs> dëgg du neex yow xam nga ni yow yaay séeri Moussa Djigo dëgg neexul loolu loolu noonu dëgg neexul yow yow da ngaa baax avant tout mhm. da baax mun naa ni yow xamante nañ nga nekk ku baax ma xam la xam sa famille xam say xarit xam sa lépp yow tamit nga xam ma xam samay xarit xam samay lépp ñu sekk jàmm bon dama lay ñaanal li nga bëgg tamit suñ borom defal la ko ci sa néegu sëy waa nga góorgóorlu noonu la demee àdduna góorgóorlu rek a fi nekk man dama kontaan ci yow mënoon na la cee tamit bañ a fekk mais ñàkk ki ñaan bi nga def man awma sa fay kontaan naa baax ci saw pulo di la ñaanal nag sa sëy bi liñ ci bëgg lépp suñ borom defal la ko suñu borom jubóole la ak sa jëkkër yow da baax madame Djigo wa ngi nii. may dóor maa ngi kontaan bu baax a baax mbokk yi émission bi ñu ngi ko amalee woon fii ci place su Fallou mu nekk ku baax muy jaay prêt à porter yu yaañ ji macha allah waaye itam dañuy kontaan bu baax a baax ci suñu invité di ko jaajëfal muy Ndatali Fall euh, ni ma xamee ni ko raw laa ko xamee ñu séq jàmm séq teraanga. Mm. àdduna nag lépp teraanga la macha allah ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yoon bi yàlla boo ci gis loo ragal. Mm. yàlla nañ la dégg fi ñuy dégg sa idole Wally Seck mbala kontaan itam ci fàll bu baax a baax di ko ñaanal du ñu ñaan benn yoon mbaa ñu gërëm mbaa ñu def dara ñu fàtte suñu caméraman bi nga xamante ni mooy Seydi G Londaam Siré waaye itam suñu nouveau marié bi kenn du ko fàtte <laughs> koo koy Bamba Étoile euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di kontaan yaakaar naa ne tey li ma leen indiloon neex na leen ma sekkoon ak Papa Wally waxtaan ak tontu muy jeune talent bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax euh, beneen yoon